asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 13 juillet 2020 ñu wax ci yéen ci yëglikaay yi tey sunu lamb la ñuy xëy dooreete ko mu mel ni ki yëglekaay ba nag moom tey fa mu xëy ñëw mooy ci combat bi nga xam ne nii mooy coow ci dëkk bi dox ci diggante guy gi ak ka nga xam ne nii moo di rëg-rëg bu caaro yi mu mel ni ki nag sunu lamb moom la mënu xëy xamal daal ne na combat ba day bu ñeboo xaaraat de ndax nag finaliste ga maanaam daal jeexal taxaw ne combat ba taxaw na fi mu nekk nii daal ne na loolu moom des na sunu làmb moo xëy tey ñëw wax ko mu mel ni ki nag ba tey yëglikaay ba fa nga xam ne nii wala ka nga xam ne mooy agent guy gi di nas moom mu ngay xam ne ne daal Mao Cissé woo na ko démb ay woote yu bare bare bare bari mu mel ni Mao Cissé mooma nag bañ ko wooyee moom itam la mu xamal daal waa journal ba nee leen daal li am ba des da dama bëgg daal ngeen may ma ba ma finaliser ak waa kër guy gi loolu mu ngi ci sunu làmb mu mel ni ki ba tey yëglikaay bi ñëw na ci daal ni mu jàpp ne guy gi dafa mel ni daal dafa pièce ki nga xam ne nii moo di rëg-rëg wala sax pièce moom def na ko ko yëglikaay bii di sunu làmb xëy tey ñëw ci combat boobu ci ak yaatal leneen loo xam ne nii fekk nañ ko ci sunu làmb muy combat boo xam ne daal daa mel ni bu taxawee moom dina am koo xam ne du ko arrangé muy diggante booy ñang ak ki nga xam ne moo di tafaatin yëglikaay bi ne na day mu nga ca bonne voie maanaam daal mu ngi ca yoon bu baax wa te jàpp na ne bu amee day Lac de Guiers numéro 2 moom dina dugg ni ruba ndax ngir mu amub combat bu keroogee dana jafe lool kon moom daal warta ñan tafaatin ak Boy Niang di taxaw ndax bu taxawee moom Lac moom xaar dana ko def am na ñoo xam ne nii moom fa ñu war a xaare wala fa ñu war a taxawe daa mel ni soreetunu ko yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw andil ñu ko muy ñetti mbër yoo xam ne daal ci yoonu retraite ñu ngi ci jubali ka ca njëkk mooy Gris Bordeaux yëglikaay bi ne mu ngi ci ñeen fukki atam maanaam 40 ans kon moom la ko dese fi mu nekk nii bëreetul ci juróomi at lañ koy xayma Eumeu Sène mu ngi ci quarante et un moom itam mu mel ni la ko dese kon ci ñeenti at lay toll Bombardier moom quarante quatre ans mu mel ni ki moom itam ñette wala boog benn at. moo ko dese ngir mu dem retraite kaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw andil ñu lu mel ni ki noonu mel ni ki keneen leneen loo xam ne nii CFM entertainment taxawal nañ ko booba moom daa mel ni finalisé nañ ko muy revanche bi war a dox ci diggante Alaaji Mbay ma ngeen xam ma nekk ca Pikine ak ka nga xam ne moo di buuse bu way ma nekk ca États-Unis mel ni ki booba combat tamit ñëpp xëy nañ ñu wax ne taxaw nañu moo xam sunu làmb la moo xam Leewtoo point net la moo xam record la fu fa dem daal fekk nañ fa combat ba taxaw Omar Abdourahmane Ndiaye falang tamit mel ni ki yëglikaay bi ñëwaat ñëwaat na ci yëglikaay bi di suñu làmb xëy na tey dikkaat yi keneen koo xam ne ni moom am na lu muy préparé daa mel ni de na ca cel toog jàpp ca boppam di préparé wu yëglikaay ba xëy ñëw wax nu ko muy pa Abdou Fall borom paf production yëglikaay ba xëy na tey ñëw wax nu ko keneen koo xam ne ni wala ñeneen ñoo xam ne nii moom daa mel ni jamono ji moom place yi la jël daal di fa féexale seeni xol muy ñoom Baye Ndiaye ak Jibi Ndiaye ay Balla Gaye dëkk ñu mel ni ki noonu yëglikaay ba xëy ñëw wax nu ko Jibi Ndiaye nag moom daa mel ni combat ba nga xam ne tëggoon na ko ba joxe avance combat ba daa mel ni mujj na yàqu doxoon ci diggante Petit Niang ak ka nga xam ne moo di Boy Dakar yëglikaay ba daal lam ñu xamal mooy booy këlëb këlë di Petit Niang moom delloo na avance ba yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw wax nu ko leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci wala keneen koo xam ne ñëw na ci moom muy ama neex ak treize victoire am ak trois defetam te mu mel ni fi mu nekk nii daal combinaison bi gars yi dañ ko ciy génne maanaam daal combat yi nga xam ne dañoo bëgg mu taxaw daal daa mel ni déggee su ca turu ka nga xam ne moo di ama neex bu tëngeej buñ fa jógee moom dañuy dem fa nga xam ne nii moo di ca record record tamit daa mel ni ki daal tey bi mu xëyee ñëw moom ñëw na ci combat bi nga xam ne moo war a dox ci diggante rëg-rëg ak guy gi layti seen nga xam ne nag mooy rëg-rëg moom moom ne na fi mu nekk nii daal ñoom daal signé nañu ak waa GFM ba pare yëglikaay bi record a xëy ñëw tey wax nu ko mu mel ni ba tey record tamit mu ngi xamal daal leen guy gi moom bu ngeen bëggee dégg-dëgg tey ji ci altine ji daal la war a ak ñi nga xam ne ñoo di waa GFM yëglikaay bi di record a xëy ñëw tey wax nu ko keneen koo xam ne ni moom signé ba bëri la bëgg muy Valdo yëglikaay bi di record a xëy ñëw dalal ko Valdo nag ña xëy di dal bokk na ca Yékini Signor Malick Niang ak Forza Yékini Signor nag moom yi la ko Valdo xamal mooy ne na ko yow boo paree man pare naa te li ma la nar a def mooy teg la ci sa place daal delloo la fa bu baax a baax lii la doo xëy tey wax ko ka nga xam ne moo di Yékini Junior bu dóor waar keneen koo xam ne nii wala beneen écrit boo xam ne nii moom jàppal yëglikaay bi di record xamal nañu ne daal six victoire def nañ ko ak li nga xam ne nii moom moo di ay defet yoo xam ne ni am nañ ko toll ci juróom muy malika mbooloo ba nga xam ne fa la général malika nekk mu mel ni kii nag ñoom fa nu tee baax na waaye ka nga xam ne nii moo di seen mbër mu mag ma moom di général malika moom la ko rey mooy corona ba daal moo ko xañub combat buñ fa jógee nag dañuy dem fa nga xam ne moo di leewtoo point net leewtoo point moom la mu ñu xamal dafa ñawaat ci mbiri ka nga xam ne nii moom moo di Jules Baldé Senior mi fi jóge bu yàggul ak la nga xam ne moom la fa Wally Seck waxoon ak ña fay dem di jaale ji bu fekkente ne nii nag moo di Mohamed Ndaw Tyson la moom Tyson daal démb xamal nañu ne ci leewtoo point net dem na Pikine jaale ji ña nga xam ne ni ñoo di famille wu Jules Baldé Junior waaye Wally Seck itam ñu ngi ñuy xamal ci Leewtoo point net daal démb dem na fa wala boog yónnee na fa kër ga nga xam ne waxoon na ko wala terrain ba daal jël na ko joxe ko mu toll ci cent cinquante mètres carrés ñu ngi xamal ne nag foo mu ko joxe daal mooy ca Almadies 2 daal fa la joxe kër ga te yemu ca de moom Wally lam leen xamal daal mooy famille ba wala que mu yónni woon Demba Badiane daal lam fa xam ne daal Wally na ginnaaw joxe na terrain bi du ca yem dana jëlaat xaalis dal di ko cay dugal ci mbirum tabax ba Keba Kanté itam mu mel ni ki démb dellusiwaat na fa moom itam ginnaaw ba mu jàppee ca feebar ba ñëwaat indiwaat fa am njaalam mel ni kon daal foofa fi mu nekk ni gaa yaa ngi fay baagante waaye li jar a wax yàgg maar mooy daa mel ni daal réew mi ñi mel ni man bu ñu fi nekkee di yàq ak wax leneen lu dul noonu am na ñoo xam ne moom saa yu ñu xëyee ci mbaax la ñuy dox ak dimbalee te yàlla tax waaye Wally sekk mii day daa mel ne ak ñi mel ni ki moom jar na ñoo ñaanal gudd fan ak wér ndax nag yàgg maar mbaax a gën lu dul mbaax te la waaj a waxoon rek booy baax baaxal ndax baax bari bañ bon bari bañ a ndax mooy alal yàlla nag waa Leewtoo TV ne nuyu di ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar naan la bon début de semaine waaw ah, merci amin amin maa ngi lay delloo ziar di la ko ñaanal yow tamit di ko ñaanal internautes yëpp di ko ñaanal àddina bi yëpp ah, yàlla may ñu semaine wu jàmm bu mu ca xéewal xam nga ñaan yàlla tamit mu jëlal corona bi nga xam ne sonal nañu maa ngi lay fay bu baax a baax ah, Babacar xam nga gàddu waaw Ramos nee na naa la ko laaj. gàddu waa waa xam naa gàddu de. gàddu naar yi dañ naan ànd ñu ne gàdd maanaam naar yu groupe di dem ak yooyu. bu <laughs> leen tuddee gàddu naar yi ak yu mel ni ki noonu. déedéet benn garab la buy def ay bu génne ay fruits fruits bi nag su wàddee si garab bu kawee lay jógee. si wadd na day def bruit mais nag su wàccee rek nga gis ne affaire bu ndaw la comme sump waaw man de kàdd laa xam waaye gàdd ma xaw ma kàdd voilà kàdd kay xam naa ko am àdd la doom bi moom la ñuy tuddee àdd day zone <laughs> waaw ko maa ko xam ak jàmm raas naa ko ba tàyyi nee nag sa mbëggeel maa yow nag mënul nekk ni jàll nag si si ah, ramos man de bu <laughs> gaaw déglu ma wax ko ramos da ngay def lu gaaw parce que Leewtoo bu yàggee du sotti man damaa bëgg nga ñëw def li ngay def def différence soo ko deful ma def ko na leer nañ di ñëw nag si capitaine <laughs> ramos ma ca Real dafa gaaw dañee nag si la sumulaan nag ñi nga xam ne que combat bi nga xam ne moo war a dox si diggante guy gi ak rëg-rëg neñ ñu des na nag am na ay euh, ay euh, ay quelques détails yoo xam ne des na ki nga xam ne mooy nas nee na nag maawo euh, si weekend bi nag woon na ko lu bëri yoon nee na nag maawo mi ngi wax journal bi nee na bàyyi mu ba combat bi taxaw mu soog si addu Babacar waaw mu mel ni kon combat ba daal ba tey mën nañ ne des na parce que li tax mooy que ni ah, bu dee waa kër rëg-rëg moom wala guy rëg moom fay côté féete na boor mm. côté guy gi moo des yaa ngi dégg nas tamit ak maawo defe naa ne ñoom mbir ma ci ñoom lay mujjee ji leere parce nas moo yore wàllum guy gi maawo moom moo yore wàllu GFM kon daa naa daal li am solo mooy ñu may leen rek temps xëy na fii ak quelque temps wala ay heure wala ay fan dinañ finaliser côté guy gi ba combat bi mën a taxaw 100 pour cent mm-hmm. xam naa ne soo génnee nu wax lii parce que week bi nii am na ay journaux yoo xam ne ñoo génne combat bi taxaw na a dégg observateur la waaw moom kay yéen a ko seq kon. voilà Babacar nu ñëw nag si que beneen information bu nu suñu làmb génnee mooy nee nañu les trois papiers maanaam ñetti màgget yoo xam ne léegi nu jël seen retraite ku si mel ni comme Gris Bordeaux nee ñu am na 40 ans ki nga xam ne mooy Eumeu Sène am na 41 ans ki nga xam ne nag mooy Bombardier am na 44 ans dafa mel nag Bombardier moom moo gën jege nag porte de sortie ndax moo am 44 ans. waaw yal na leen ko yàlla ci mbir ci yëngutu bañ naan yaa ngi waaj a te yàlla di la ci may nga di ci nekk ci jàmm defe am na ñoo xam ne ñoom fi ñu yegg cat yegguñu fa cat te booba bàyyi nañu làmb donte sax amuñu benn problème mais dañu dem ba xëy na mënatuñoo def dara ci làmb ba tax ñu bàyyi mais defe naa muy giri muy Eumeu Sène muy Bombardier am nañ méritu làmb mm. parce que yàgg nañ ci yaa ngi dégg ci année 90 yi la ñu nekk ci làmb ji ba tey di wane seen bopp ba fi nekk nii tey ñu naan kii benn at a ko dese kii ñeenti at kii juróomi at mel ni kon daal lañ leen di ñaanal yàlla nañu yeggali seen carrière ak jàmm dem retraite ak jàmm seen vie gën a neex loolu lañ leen di ñaanal di ko ñaanal bépp doomu aadama journal aussi mu ngi xamal ne combat Boy Niang ak Tapha Tine ngi si yoon maanaam eh, am na promoteur boo xam mi ngi koy dox nee ñu n ku ne la ñàkk nag si combat boobu mooy Lac bu taxawee day xam naa ne lak moom du du affaire am du du dina xaw a doy waar mm. nekk nii comme li ñu gars yi bindoon keroog rek benn combat ñetti VIP wala boog ñetti ponkal kon defe naa ne bu fekkente ne Lac de Guiers ak wala boog Tapha Tine ak Boy Niang ñu ngi koy dox moom ki nga xam ne nii daal mooy Lac moom bu combat ba taxawee ah dina xaar. Mm-hmm. waaw euh, beneen combat boo xam nag taxaw na te xam naa neex na amateur yi mooy mooy combat Alaaji Mbay ak Ketchup ketchup bi nga xam ne mi ngi si États-Unis nu fàttali na ko seen combat bu njëkk ki nga xam ne mooy alaaji bi a dégg daal a tee neexati lay doon damaa xamul nag ndax dina neex ni mu neex woon ba <laughs> wala déet ndax bu la ba kii mais a mm. mbay daa mën a kon waa GFM daal loo ci mën dégg indiwaat nañu nañu revanche boo xam ne ni moom nit ñi dinañ ko fàttale kooti mhm. waaw euh, suñ jógee nag suñu laam nañu dem fi nga xam ne moom mooy record record li daal am nañu yaakaar tey ji dina signé Babacar waaw loolu daal boo amee dañ naan jërë alhamdu rek parce que li tax mooy comme combat bi annoncé nañ ko ba pare ah ñu naan lii des na fi ak des na fa xëy na kon tey li ci war a des xëy na tey la lañ koy yeggali pour mu mën a taxaw ndax nekk na combat boo xam ne ni tamit combat guy gi ak rëg-rëg mhm. ki nga xam ne mooy Leyti Sène muy agent rëg-rëg ñëwaat na aussi si signature bi nga xam ne moo dox si rëg-rëg la kon moom itam jàpp na ne daal mbërëm moom dèjà signé waa GFM yi ah, daal <laughs> mel ni ñoom fi nekk nii moom ñoom daal ñu ngi def nañ la def toog di nekk ñoom mhm. keneen ki nga xam ne moo toog nag di nag ki nga xam ne mooy Yékini Junior mooy Valdo neen daal su nga joxee Valdo daal dina ko delloo war place am ko joxee Yékini Senior waaw Valdo loolu la xëy tey wax waaw Yékini Senior da la xëy na buñ ko ko joxee mu tegaat ko place hmm. ah waaw loolu moom yàgg na ci làmb comme li ma la wax ngeen mu a bëree mayante sens mën na faa am waaye xam naa ne la daan la wax rek ca yeneen combat am na combat yoo ne suy am day am ci ku muy dépendre mais combat boobu pour muy am ci Yékini Senior lay am na lu mu jot a def ci làmb yaa ngi dégg tey defe naa ne ñu ngi dégg turam di dégg ay combat yoo xam ñu ngi koy wax ay combat ak Garga ay combat ak Sa Thiès ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii mooy loolu Valdo nag am na lu mu bëgg am na lu mu bëgg a wane moo tax xam naa mu koy waxee nii suñu jógee nag record dañu dem fi nga xam ne moom mooy Leewtoo point net Leewtoo point net ni nga xam ne ginnaaw nag bu mu fa euh, demee woon jaale ki nga xam ne mooy euh, euh, Jules Balde Junior ki nga xam ne mooy Waly Seck nag tëni na promesse na benn Euh, terrain bu 150 mètres carrés jox ko ki nga xam ne mooy famille euh, Jules Balde Junior Babacar. waaw muy lu ama am solo mu mel ni kon daal encore une fois rek dañuy jaalaat waa Pikine rek di ñaan Jules Balde Junior yàlla yërëm ko te jégal ko moom bépp su nit ñaa ngay continuer di fa dem di jaale ba tey dégg nañ fa tay seen na la mu waxoon mu def ko yaa ngi dégg loolu nag moo lay wan ne nit ñi li ma la wax sànq rek am na ñoo xam ne nii Ndeye Coumba Fall mbaax rek a leen ñor te ci la ñu jox saa suñu xëyee mais am na ñu mel ni Babacar nag ah ñoom yooyu bëgguñu koy dégg sax yaa ngi dégg bu ndey Kumba Fall dafee mbaax sax dinañ ne waaye yaa ngi dégg mais waali daal ak ñi mel ni moom ndax bëri nañu mel ni moom ci réew mi dañ leen di ñaanal yàlla yàlla sàmm leen ñi mel ni Babacar nag seen i xol xëy na dimbalee nekk gu ci wala jàppale doomu aadama yal leen yàlla dimbali rek leen leen seen xol ba ñoom itam ñuy mën di dimbalee ndax nag lu la waaye di mën a wax mooy tey ko yëkkati million maye ko wala mu yëkkati terrain maye ko jàppal ne gox ba mu ko defee ñàkkul ku fa nekk ëpple ko te defu ko waaye moom nag moom la yàlla tàggatop xolam ba mu def ko kon Wally Seck jërëjëf lañ koy wax ndax dégg naa Cheikh Abdoulaye doon na wax ne géwél amul mais ku la defal lu baax nga wax ko te mbaax dañ koy siiwal kon Wally loolu mu def ñeneen def ko ku mel ni Keba Kanté gis nañ ko itam tamit bisil ba nee ci feebar bi jàpp na ca bu mu génnee àddina demaat na def lu mel ni ki noonu ak ñeneen ñoo xam ne mënuñu leen a lim parce que ci xamul bëri na kon daal loolu mooy Sénégal na ñuy dimbalante di jàppalante di wax ñaanu maam da baax ga rek yàlla gën a tàppe xol yi xam nga ñu bañ di ñaanante soxor baaxul ndey Kumba Fall leen ci yàlla mu sumb na ci làmb mais bi mhm. yoon leen tàggoo leen jox di daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mais nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astane DG Brahma Ibrahima nuyu ki nga xam ne mooy Asek Chéri Khoudia Seck nuyu ki nga xam ne mooy Talibé Cheikh euh, bu Gérow maa nuyu depuis euh, Italie euh, di ki nga xam ne mooy Jàmm Gueye Papa Cité aussi maa ngi koy nuyu di ki nga xam ne mooy Jibi Bamba ba majee aussi naan ko waajal parce que neen takk na bagage mi ngi waaj a ñëw yibi Sénégal Babacar na yegsee na yegseeg jàmm bombar yi ñu koy nuyu di ko ziar di nuyuwaat Jibi Bamba moom waaye di nuyu tamit tey waa ànd jàpp zim bi nga xam ne ñoo may entraîné rawatina nag sama coach suba Demba ak ñoom Njàmme ñëpp maa leen ak jigéen ñi fa nekk tamit ñoom Angèle ay Adama Ndoye xat yi ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg Ndeye Coumba Fall parce que wax dëgg yàlla euh, am na lu bari loo xam ne nii ci weer yi moom yokk nañ ko ci man su ma la waxee rek te yàlla biir bi des na waaw waaw non xam nga li am solo daal man Babacar man mi entraîné xam naa li may yëg macha allah di nuyu waa ànd jàpposim yëpp di nga xam ne nii yaa ngi ñuy seetaan ak foo mën a ne di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow ñoom ki nga xam ne nii mooy Serigne Diour borom Italie maam Libaas Lo maa ngi koy bégee ñoom Tutiyaay Sarr xam nga ñoom ñëpp ak Omzo bu Garga moom tamit du ko fàtt di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm nawet bi nag commencé na ca bawal ak feneen ak feneen yàlla nañ ci dugg bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbi alamin mbay mi barkeel ñu muurloo ko barkeel yonent bi sallallahu alayhi wa yaa ngi si biir ba suba incha allah